contrôler le processus nan lay organiser woo. ba desaat fi ba de. moom njabootam non mënu fee des moom loolu leer na ko. waaw mooy njabootam su ma nee desaat fi mooy njabootam ñu jotaat fi ñëw moom mu mën ci am euh, sa mise waaw ba tey ba tey mu kon di contrôler oui imaam luy laaj. li ma bëgg laaj léegi après ñu bëgg a laaj am loo dugal ni bu eggee ba. ba le deux ba le deux euh, président assemblée nationale. Hmm. mais dafa am lu dox ci diggante bi taal. mooy euh, daf ni lundi mais su fekkee nii imaam naan tele neen lundi mardi waaw lundi bu fekkee ni jàppul date mm. bu ñu war a demee mm. mais dañuy dellu ci conseil constitutionnel mm. ñoom am nañ sañ-sañu jàpp date waaw mm-hmm. léegi ñëw maa ñëw am nañ sañ-sañu date jàpp date raison pour laquelle ñun déposé nañu recours xaaruñu ko keroog le jour même bi mu defee point de presse bii bëkki dem jeudi te suba ga la dem recours wuti conseil constitutionnel ne leen kii ngeen wax ni kii ngeen jox cër yayowu cër bëggul dem élection moo tax muy taal sa verset. mais jox nañ ko. yóbbu yóbbu nañ kii bi jox nañ ko cër bi. et puis même date bi fay bàyyeekoo sax nga ma sax dama ne la conseil constitutionnel. amoon na. Mhm. possibilité ak responsabilité def ko. mais daa jëlaat bal bi. jëloo ko cër. paas ko ko. merci. fekk si ko si li mu woote. waaw mi doon woote waxtaan mu ne dem leen ngeen waxtaan yéen acteurs yi. maintenant yéen acteurs yi bu ngeen juboo ak jub bu ngeen jubóowul. Hmm. Macky ne leen day jëlal affaire hmm. léegi bu demaatee conseil conseil lan la conseil conseil. di doon laa la wax foofu nag conseil conseil mu jëlul responsable dem rek mu nag dafa jar a taxaw am seetlu ak seetantal. Hmm. man li ma jàpp. te jàpp ko te mu wér. mooy ni conseil conseil danañu jàpp date bu Macky Sall jàppul fii ba le fii jàpp woon ne élection le vingt cinq février. mais man après bi mu commencé yii mii combaa coono man daal tànk woowuñu ma ne ma monsieur Talla jëlal sa baaraam capp ci encre bi d'accord naa ak yow man daal tànk yeewu ma ba dugg ba dugal sama baaraam Talla am na logique boo xamante ne mm. conseil koy demee mm. boole ci wax aha ñuy constant en tout cas moom boole wuñ wax ci seen liggéey nit ñooy nekk ci angle yi di expliquer waaw su eggee ba le su eggee ba le deux article trente sept ñoom ñu ngi di lu war a def def nañ ko. mais nañ toog nañu xaar ko waxee ne ko recevoir bi nii. bu désisté wala benn candidat bu mënti doon bu désisté. Hmm. yow da nga war a piblier waat. mais ci guddi gi la ñu. bind maa la ko wax publier mais conseil constitutionnel. bi muy ñëwee ne président ce décret bi nga jël. dàq naa ko. mënoo ko may ma xaaral rek ma xaaral. dàq naa ko loi bi dàq naa ko la moo tax jëlu woon date ca booba. léegi jëlul date. dafa am dafa am dafa am. suba bi du mën a nekk mhm. mais moom xam na kañ la mën a nekk waaw Sénégal eh, ni ñu tëralee eh, institution yi cëru taala bi ñu ko ko xañ dañ lay jox sa cër kooku cëru Macky Sall la woon pour mu jàpp dat mais dañ ko ko jox mais ki dem ba xam ni ba ñu xam ni cëram bii dafa man mënuma jàpp ne hmm. euh, conseil constitutionnel dafa am dilatoire buy am diggante ma Macky Sall wala leneen man li ma jàpp hmm. man ci sama xel li ma jàpp mooy ni jox nañ ko cër bañ na cër boobu danañ dellu siwaat fii danañ jàpp date bii ne date boobu danañ ko def balaa la parce que boo déggee Aly Ngouille Ndiaye nee na mën nañ fi tëral ay élection avant deux avant le deux mën na nekk sinon mais bu mën nañ leen ko may sax ñu dagg campagne bi hmm. bu dee campagne bi vingt jours vingt un jours mais nañ leen may cinq jours yi wala dix jours ñu ñëpp ñu dëpp te bu toogee bu toogee ak les dix neuf les dix neuf kat situation yi demee ni ko conséquence ne laa wax ne waxuma nag waxi Macky Sall hmm. situation yi demee ni nii dañ leen di ñaan ñu dagg ci campagne bi cinq jours hmm. mais kooku dañ ko koy valider même si c'est dix jours parce que xam nañ fa ñu mujj moom Lamine fii lañ toll de oh, ah, ah. bu lépp jaaro yoon suba ñu ñu tànn de waaw demewul noonu président wax na ko benn point bi xam ne dafa ñu bàyyi ko xel mooy euh, président de l'Assemblée nationale mënutul jël kii parce que trois conditions yi war a tax président de l'Assemblée nationale na mhm. Euh, war a kii même sax Macky Macky Sall évacué na benn bi. mooy que man du ma démissionné te bokk na. ci ci benn kon. bu doon waxam moom julliwul. non je veux dire je veux dire. je veux dire moom tu sais Macky yéen xam nga keroog waxoon naa il est en train d'abattre sa ses xam nga ko doon wax. Mm. yow sax. <laughs> mi ngi doon abattre ses dernières cartes. parce que en ce moment ci côté boobu xam nga boo boo jegee mu ne la man du ma démissionné. parce que trois conditions yi war a parce que mi ngi doon président de la muy waxtaanee est ce que dégg nga mu ne si dialogue mënuñu waxtaanee lépp li ñu mën a waxtaanee mooy. jàpp datu élection bi ak après le deux donc après le deux y a une transition dans cette euh. transition est-ce que c'est lui qui va faire la transition déggoo mu ne je vais moom wax na ko nee na man je vais être là jusqu'à parce que dafa am loi bu naan ko euh, le président kañ lay joxe kii bi nu mu am na sax nu mu ko tuddee voilà euh, voilà mooy que ni mën na toog ba beneen président bi ñëw xam nga xam nga loolu la parce que waxam il def ko mesure comme ay mathématiques gis nga euh, si biir waxam dafa am ñetti volet xam nga dañoo ne euh, dafa am doom buy tiitaroo baayam am doom bi nga xam ne baayam da koy tiitaroo ak doom buy tiital dafa am moment bi nga xam ne ci biir waxam. di nga dégg ne am na un temps où euh, président bi mi ngi doon tiitaroo Sénégal ak ah, liggéey yu mu defar ak yu mu réaliser yëpp Sénégal di ko tiitaroo. mais wax bi ba mu daanu fu mu ne ñëpp a tiit kon dafa tiital Sénégalais yëpp léegi nag ñu ngi wax affaire libération Ousmane Sonko. waay mais ça c' est Macky Sall et Sonko. Mm-hmm. mais problème bi fu nekk nii c' est Macky Sall et le Sénégal. c'est problème bi tey bu ñu doon libéré Ousmane Sonko Diomaye Faye ñëpp. Mm. mais teewul Macky Sall dafa tegul problème pour son problème c' est pas entre moom tegu posé wu problème boobu. Ah il a posé un problème. Ah entre moom ak sénégalais yi bu leen libéré woon yëpp yaa yaa ce problème là qui est là mooy dafa jël ay décision bi nga xamee ni moom ba mu koy jël en âme en conscience xam na fu mu jëm gis nga dialogue bii ñuy wax la la dënee ah xanaa ñu am mbetteel bu rafet de mais Macky Sall xam na jab dialogue dialogue bi fu muy aboutir ah, gis nga dafa teg wii ah. xoolal xool nga bëgg wax ne lii maanaam ñoom waajaloon nañu li ñu bëgg yëpp xoolal ak mardi formalité rek. mais mais xoolal ñi mu ñi mu dugal ci biir dialogue bi. waaw ah, ñaan. imaam yi dañu dem élection. <laughs> les religieux on parle de date. ku mu wax non non da ko dégg mu ne religieux. non non dafa xoolal ñi mu dugal. waaye non loolu loolu xoolal. xam nga lu mu. foofu les 19. les 19 qualifiés. waaw ñoo la doon xëcc. les religieux font part de mu dugal. ñi mu dugal mais logique. par exemple dans ça euh, les candidats yi nga xam ne le conseil constitutionnel a validé leur candidature ils sont déjà passés. Hmm. après nga bëgg woo les candidats yi nga xamante ni ils sont pas passés les candidats qui sont pas passés logique pour le moo tax ma ne la xam na dialogue bi lu muy lu muy jur ah. parce que ni mu acteurs yi mu teg mënuñu juboo parce que ñi nga xamee ni ñoom bokkatuñu boo ci boolee yow nga xam ñoom seen yéene mooy ñu bokk affaire date du leen fa indi affaire lañ fay bokkee lañ fay indi kon boo moytu coow bi day yóbbu yeneen. ku mel ni PDS moom dat du ko li jënd. ñëw du ko fa indi. <laughs> te dañ fay teew. waa APR waa APR waa APR ñi nga xamee ne ñoom aussi. Amadou Ba arrangé wu leen. et puis euh, amuñu yaakaar ci dinañu gagné. Hmm. fu mu ne nii affaire dat du leen arrangé du du leen fa indi. mooy que ni donc man amoon mon avis hmm. moom déjà xam na affaire bi lu muy juru ba pare mu teg résolution yi nga xamee ne situation bu amee jubóowuñu gisoo yëpp wax na ba mois de juin. Hmm. avant kii bi il lépp laa di. avant hivernage mais mais Thiam Thiam la. Ah. Euh, dafa am benn euh, politicien français moom lañ koy féetewee. al Pasqua quand on est problème il a créé un problème du problème dans le problème ba pare ne leen kaa ñu wax ci loolu Macky est très intelligent et dafa xam Sénégal xam nga ñaar ñoo ko am waa waa waa si ñi nekk ca àll ba ca ca ca tool ya xam ñoom ci la la ñuy wax mooy yàlla baax na loolu mooy seen tab ñi nekk Dakar na xam lan mooy lan mooy seen kii mooy garaawul waay gis nga garaawul waay rek lay mujj non garaawul nañu dañu gars yi voilà. je fais une analyse je fais une synthèse synthèse mooy lan quand on écoute Macky li mu wax le 2 avril ba ne peut-être sax ci nawet bi. il faut ñu def élection avant nawet bi. waaw wala effectivement l'article 36 va rentrer mais c'est mais c'est c'est clair c'est clair et net maintenant bu fekkee nag nit dañu bëgg kii di wax kii di wax mais on s'en sortira te gis nga il faut ñu éviter benn affaire am na lu wax kii di wax kii di wax caam am na wax léegi on est dans une impasse en fait. mais c'est même pas une impasse c'est un blocus total xam nga le problème mooy gën ne gis nga caam euh, li mu wax léegi nee na ñi nekk ci àll bi yàlla baax na ñi nekk Dakar garaawul. est-ce qu'il n'est pas lieu de se poser la question qu'un peuple n'a de dirigeant qu'il mérite, de par sa façon d'être Et sa passivité. Ah. C'est pour ça que moi, une question, est une question nationale. léegi nag eh, euh, dafa am point bu Ayoba wax euh, kii Camara euh, mhm. dafa ne Macky dafay demander pardon man dégg man j'ai pas eu cette lecture là mhm. moi je li ma gis mooy dafay dafay pardon pour baal leen pour bal leen yéen mais c' est pas lui son camp maanaam yëgul ni moom am na fu mu. tooñee ba nekk ci. voilà baalu parce que gis nga na affaire amnistie ak grâce. yëpp il a pris la peine de l' expliquer. ba pare nag daal di ne euh, taxaw pare nañu pour baal leen ak yooyu yooyu la yooyu la indi léegi rek gis nga jàngat bi. gis nga les nodes yi ta talaa am na lu mu ci wax. mais yi ñetti point rek la doon jéem a validé. ñett waaw. ci biir di euh, mu doon waxtaan waxtaanee keroog dafa doon wane nii li conseil constitutionnel wax moom parewul pour appliquer ko parce que ñoom dañ ko ne choisiral date moom mu oote dialogue waa conseil constitutionnel wax ko mu mu oote dialogue dañ ko dem mu choisir moom mu oto dialogue hmm. waa bu ko nee les les autorités compétentes. li mais ko conseil waxee. mais moom cest à gis nga gis nga mbir bi bu mujj gis nga mbir bi bu cons foofu nag la waroon oo nag yi nga xam ne ñoom les les les dix-neuf bi mu vite mën na nag sax par téléphone il n'a même pas besoin de truc deuxième chose mooy que ni il voulait montrer que ni valider légitimer le fait que mu war fee toog après le deux parce que dialogue bi bu ñu ci génnee. day fay légitimer loolu moo parce que jubóowu leen. parce que wax na ko nee na ah toog leen fii di xoole rek ba ngeen ci na ay forces organisées nga xam na ñu mais force organisée c'est lui du keneen. mais force organisée c'est lui parce que. il, il est organisé il y a a le truc vous n'êtes pas d'accord et puis moi je vais dérouler jusqu'à ce que ngeen di d'accord ba pare kay légitimer parce que loolu la doon wax képp nee na euh, de toute façon le le la la chaise bi mënul euh, ñu mënul toog sans président alors je serai forcé d'être là jusqu'à ce <laughs> que voilà tu vois <laughs> l'a dit et dafay xoolal scénariser affaire bi dafay scénariser ba ba après ah. voilà ah oui oui <laughs> mais mais daf koy scénariser ba après ñu nekk ci condition boobu après dañ naan ah moo fi sës il faut mu toog parce que moom mooy président bi mënuñu toog san président troisième chose bi mooy que ni bëgg loi d'amnistie bi. Ah. Mmh. bëgg na ko imposer aussi ci biir wax bi ci ñett yooyu man si sama dégg-dégg. Mmh. keroog réunion bi ak journaliste yi message boobu la bëggoon jàllale. Mmh. te moom il a pris la peine de l'expliquer clairement. non il a été très pédagogique. oui ci biir loolu parenthèse la comprendre nga ñi xaxar sa directeur su ma ko mënee waxee noonu. lu fa doon cëram. oui lu fa doon bon non non non il n'était pas non non mais non non mais sur la forme sur la forme. non non non non non président Macky Sall ngeen di toog fii ngeen ni ngeen koy critique dafa am njaboot léegi waaw alors kon dànk rek taala ñi léegi mooy kon njiit yi kenn du wax kenn du wax li ñuy def waxoon na njiit yi wax li dama li koy laaj li nga koy ku la ko wax li nga koy laaj ku la ko wax xam la lay wax dara leerul Racine c'est un <laughs> yoon la mais non fa toogee loolu lañ ko lañ ko présenté parce que Macky face à la presse waaw mais man. waaw ñu ko considéré comme un journaliste waru foon man mii la man mag la waaye waru foon toog. man journaliste man man man je ne voyais plus mon directeur je voyais un direct un journaliste. voilà merci beaucoup mu man gisuma fa directeur. journaliste laa gis moi je voyais plutôt. directeur qui de la propagande. tëj naa Moussa sama mag la moi je le voyais surtout faire de la propagande. man xam nga mais journaliste la doon expliquer au modérateur. Euh, <laughs> a ah. dugg ci parenthèse waaw. mais Thiam RTS ñaata journaliste may ma RTS ñaata jour non xaaral may ma rek imam may ma. mais ma rek. Mariam imam waxuma ah. lool dama ne à la RTS combien de journalistes compétents. ñëpp ay naanaan Racine Talla directeur général la. directeur général am na ñu nekk desk politique am na ñeneen ñu fa nekk Racine Talla musul génn pour faire de la communication à ce niveau. mais mais mais peut-être que l'heure est grave. grave parce lu séeréer la ci man. c'est-à-dire Racine Talla bu naawee tey bu naawee tey ma naaw tey. mais c'est-à-dire bu ñuy waxtaan ci réew mi amul papa amul mag amul nijaay. waaw comprendre nga tey bi ñu ko joxee RTS war nga fi keroog sur le plan liggéey mu def entraîné mu def saa on le reconnaît mais tey texte Sénégal sénéral dafa wax débat yi ñuy posé nii RTS moo ci waroon jiitu. Hmm. Yaxam Mbaye Le Soleil. si Le Soleil est devenu même journal de propagande c'est-à-dire mën nañoo changer Soleil bi sax. ñu def ko bopp fas su leen neexee. Ah, d'accord ñu dem toog foofu trier au fond rek cadré lan la fay. débat bu subi sa mooy la d'accord alors Lamine yeggali parenthèse la ah, woon rek. Mamadou Lamine. mais euh, tëjaat naa parenthèse bi comme tontu yaa ko ubbi rek ma dugg fa <laughs> yaa gën a xam ne boo ko laajee du. gis nga tontu boobu kii a ko yor. kan ci mais kee yoru ko. <laughs> Eh. lépp ñëpp la yore. loolu scénario la bu ñu organiser. lépp ñëpp la yor bokk ak. pourtant pourtant kii moom. pourtant nag taalaa tamit lépp ñëpp la yor. déedéet déedéet kii moom bokkul waaye dafa jiite lépp ñëpp. kii moom bokkul ci alors yeggal oui. c'est pour dire ni ak euh, ko bañ ko bañ ko ko posé rek. Mm. là on faisait allusion à la date. ba ci laa pare ci ci waxtaan bi. parce que loolu la ci intéressant parce que doon xaar. Ah. mais il a il a montré que là il va pas donner de date aujourd'hui ci deuxième question bi. oui boo leen boo leen xoolee de ba dégluwaatee. bien sûr donc. problème bi mooy moom dañ ko jox euh, conseil constitutionnel. Hmm. Euh, ba mu koy naan ko choisir une date parce que daf ko ne choisis une date. Hmm. loolu la ko wax dans les meilleurs délais. <laughs> xoolal xoolal politiciens yi waxuma am politique yi politiciens yi ñuy ŋawti ŋawti di jéem a expliquer lan mooy meilleur délai. <laughs> est-ce que te boo seetloo gis nga bu ñu naree euh, def def dara boo seet dafa am ñu ñuy yónni. Abdou Mbow di ko dugal ci ci bopp nit ñi ah. xam nga di ko dugal ci bopp nit ñi gis nga ma ñu ne élection du am dañ koy reporté gis nga ñu ñuy di ko dugal ci bopp nit ñi gis nga même candidat même est-ce que xam nga ne Pape Djibril Fall hmm. man avant ñuy choisir kii là man je sais j'avais kii ko ni Pape Djibril Fall dina bokk ah, ah. ndax ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax la mooy non non parce que dañ koy am yi nga xam dañ koy préparé nit ñi tu vois donc loolu ay mbir la yi nga xamee boo seetloo. waaw boo waaw. waaw ok xamoon nañ ni Pape Djibril dina dugg daal. non non non mais en fait j'ai j'ai entendu si benn nu ñu ko wax te euh, chroniqueur. Mm-hmm. mi mi wax bon xam naa da doon euh, pro ki da doon euh, c'est-à-dire sondage yi. Ah. tu vois pour expliquer ñi nga xamee danañu danañ danañu bokk. mais il faut reconnaître qu'il a été présent sur le terrain. oui oui oui non liggéey nañu liggéey nañu parce que. ñoom boo seetloo ñoom sax ñooy gën a. ñooy gën a kii peut-être kooku foofu la teg analyse am. Hmm. ba ne je veux dire nit ñi bu ñuy bu ñuy kii auparavant da am tu dañ lay mettre au parfum. te dafa hmm. manqué de ce en vingt quatre heures. voilà des Sénégalais dañu dem. mais même la la femme là euh, nu ñu ko waxtee Anta Babacar. Babacar Ngom moom aussi tu vois ñoom ñooy gën a ñafe sax pour am parce que dañuy bëgg a prouver. donc loolu peut-être moom mooy sondage yi mooy gars yi nga xam ne dañu mën taxaw ci plateau pour wax ni. Hmm. Euh, euh, nu ñu ko wax te mais boo xoolee report bi boo seetloo gars yi dañu ko commencé di ko wax. xam nga di ko kii et puis c'est ça qui moom moo mujj am mais euh, li nga xam ne daal moom la ñu bëgg la ñu mën a retenir mooy bis boobu daal xaaruñu woon ay dialogue te dialogue boo seetloo dialogue am na ba pare sax parce que assemblée national dafa nekkoon mais dialogue la woon pour jéem a changer ki yóbbu ko la 25 décembre. Mm. ñu yóbbu ko ci euh, euh, ni ñu ko waxtee conseil constitutionnel mais ñoom tëbuñu tëb rek daal di jël décision ils se sont concertés ba génne lii donc ñu ne président bi na ut date man je pense que ni bis boobu waxtaan bi sax waru woon durer. quinze minutes ñëw taxu ne euh, euh, si mois kii nga xam ne pouvoir yi nga xam ne jox nañ ma ko je choisis telle date préparé bu et que le meilleur gagne comme il la il l'a répété plusieurs fois ci ci débat ñu ngi jëm ci dialogue bi wax naa ko sànq ci njëlbeen bi ndax Ousmane Sonko ñàkk génnam mën na ci peser gis nañu waa Jomaay euh, coalition Jomaay président la ñu manifester en